mbirum suuf ci senegal ku ne xam na nii lëmbe na réew mi mbirum suuf nag bu ngeen seetloo li tax mu lënd lëmba réew mi mi ngi commencé ci bi ñu daggee gox-goxaat yi ndaxte bu njëkk ba préfet ya gouverneur yi ñoo doon joxe suuf waaye bañ daggee gox-goxaat yi la jox maire yi ñoom ñuy yore pouvoir di dagg ay suuf di joxe loola nag ñu jële woon ko ci politique bu ñu naan politique décentralisation politique décentralisation boobu nga xam ne moo pàccal réew mi daf ko ay gox-goxaat politique boobu boo yàggat am ay ay ay ay ay ay ay rëq-rëq ay rëq-rëq yoo xam ni yu ñuy war a taxaw la yu ñu war a saafara te boobu ba léegi kenn waxu ci te rëq-rëq yi nag di gën di dem rek te jàpp naa ni politique boobu décentralisation buñ ci arrêté wul. rëq-rëqam yooyu fa muy jëlee Sénégal dana doon république ba nga xam ne ni tur waa fay nekk waaye dootu doon république ndax Sénégal day doon alali ay nit waaye dootu doon alali waa Sénégal loolu nag président Macky Sall it maa ngi ko ciy ñaan mu delluwaat ci ginnaaw xoolaat ko ñu évaluer saytu décentralisation boobu ba xam lan lañ ci war a dindi lañ ko war a defarewaat ba mu méngoo ak li ñu bëgg muy ñëpp yem ci alal réew mi ñëpp yem ci suufu réew mi loolu nag itam am na association boo nga xamee ni joxe na aw yoon ci loola muy association bi ñu ñuy tuddee Touba ci kanam doon na association boo nga xamee ni wone na aw yoon woo nga xam ne ni buñ ci jaaree lii nga xam ni moo tax politique décentralisation muy gox-goxaan yi di sooxe a ah, loole dina saafarewu ndax ci ni muy doxe ak ci ñi ko jiite dañuy doxe ak ci niñ koy saytoo tuubaa ci kanam doon na loo xam ni lu ñu war a yaatal la ci biir réew mi ak ci bitim réew ndax suñu mbokk yi ñu dendal sax ci yeneen réew yi ñoo ngi ciy bàyyi xel di ci xalaat di ci gëstu ndax doxalin gi muy doxal ci ab diir ak résultat yim ci indi muy jariñu askan wi njariñu réew mi